da ngay wax ne ci mag ñi la bokk ndax damay wax ne ci li ñu xam ci luñ xalaat suñ xalaat ceerno mi maamam gënu ko mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ku ci gën sëñ Abdou Rahman defe naa ne amu ci ndax jaalut ci ndaw ak magam it yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ak dundam lépp sëñ Tuubaa xam nga nit boo ciy waxtaan da naan da ngay wax yetti yëf mu complété hmm. ñu ne ak a baax waaye sëñ Abdou Rahmane doo wax yat da nga naan da indi lépp moom amul looy ba da nga naan ak dib taalibe ku yàlla bind nga bokk ak moom sëñ moo la ëpp taalibe nga ne ak a ku yàlla bind nga bokk moom moo la gën a gore nga ne ak am jom ku yàlla bind moo la ëpp jom ak amu fit ci lu baax ku yàlla bind moo la ëpp fit ak ak li la koy xamal ma maanaam xel koom day mujj ñëpp di la waaru sëñ Abdou ndax nit ku toll na sëñ Abdou Rahmane bu ñuy liggéey mu ne ci kanam yow loo mën a tappale fu jant bi soo falay fanaan bu xëyee tàmbali doon jëmm joo xam ne dëkk bii nu nekk ay junni nit moo leen yoral dépasse bis bu set waxuma dépasse par euh, ay fan de bis bu set am ñoo xam ne moo leen tabaxal fañ ne am ñoo xam ne moo leen tabaxal seen néeg di jënd ay ordonnance ordonnance yoo xam ne amul benn ordonnance bu tabbi ci loxoom mu la yebal ci keneen oto boppam bi pick bi. dañ koy bindu. dañuy dem ba cent. nga xam ne ki aaye tey moom. moom bu soxla woon oto bi sax du ko laaj. loolu ku ko mas a def. pick bi dañ koy bindu. daa ko soxla ñu ne diwa soxla ñu bind ka ca topp ñu ne ak diwa ca topp ka ca topp ñu ba mu mat téeméeri loolu ku ko def. muy jëmm joo xam ne da ngay xool woote Touba bii rek buñ ma saa woote Mbale. mooy njëkk fii lay tàmbalee ci bunt bi booy dugg. jëm Tuubaa te day bale ni ko nit ñiy defee. ay taalibeem di ko def. kon nag moom koo gën a gore amut koo gën a baax amut koo gën a ëpp taalibe amul koo ko ëpp fit amul koo ko ëpp njariñ amul xam nga sëriñ su baree bari. man d'accord naa ne baax nañ. waaye baax ba yow fonk mboolem taalibe sëñ Tuubaa ci moom laa ko gis. ndax bari na loo xam ne kenn ku ne am nga sa wëlërew sëriñ boo soxlaa day yónnee. am nga koo xam ne sab sëriñ lay dool boo amee yitte day yónnee waaye sëñ Abdou mooy teewal boppam màggal jullee néew tudd tudd loom amul kum xeeba defal lool te li ëpp ci jamono jii nag léegi bu fekkee takkoon doom ba tànk doonoo ministre yoroo xaalis bu bari nga am xew gis leen lu yomb dañuy yónnee rek waaye moom kii gën a néew doole la gën a fonk sëñ Abdou Rahmane daal su ma la koy waxal dama naan la Sénégal ñàkk nañ waaye Daaru si moom la fee gëj a am ku mel na moom te it yaakaar naa du fi am kon jëmm la ju dem joo xam ne yàlla na bokk ci sàmba yàlla yi yàlla rek la mën a bokk suñu xel daal waaye bu ci bokkul moom suñu xel di dal sàmba yàlla yi sëriñ bi dafa wax ne sàmba mi yàlla ginnaawam la dàq yàlla na ci bokk ñu ne buy dund yàlla da koy nattu ci ay bëgg-bëggam ci àdduna lum bëgg day jafe waaye bu tëddee fi suuf nag lu mas a yéene ginnaawam lu mas a yéene ci kanamam ginnaawam la ko yàlla yeggale yàlla na ko ci yàlla boole daaru mu sigi daal da doo wax ab taalibeem doo wax magam doo wax rakkam doo wax dëkkaloom ñëpp xam nañ ne kenn ku ne ñàkkal nga sa bopp amul ku moom amul kenn kuy fob ñàkk gi jiñ ko kenn te loolu yaakaar naa yoonu murit gépp la ndax xam-xam bi ko yàlla jox ba noppi mu di ko utiliser damay waat dama naan sëñ Abdourahmane moom musta moo yàlla ba fii mu toog am lu ko yàlla mayit nag doyloo féeteeg yàlla dafa am benn jëmmi jamono mu am ak jafe-jafe état bi ci jàngale bi muy jàngale ba ministre bi yable fa jafe-jafe ya bari ak sama cofeel ci moom tax ma dem fa di ko wax man damaa amoon ay secret ci la ci la yu mu la bëgg a jox luy tax a mucc. Hmm. mu ne ma man de xam naa ne bëgg nga ma nag. Hmm. xam naa ne jàpp nga ma lool xam naa ne fonk nga ma. Hmm. waaye sëñ Kara saa mbir laa ko baag yàlla. amul moroom. ku ko def moroom kenn kenn koo naan ko sëñ Abdourahmane sa moroom la mu nangu amul. moo xam ku mag moo xam ku ko mag. yàlla na nu yàlla taas ci barkeem ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul. Ahmadou Kara Sylla jaamu Serigne Touba. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international